ñaar fukki fan ak juróom-ñett ci weeru novembre ci atum 2019 di bis bi nga xam ne moom lañ jagleel élevage ñi nga xam ne dañuy yëngu ci wàllum sàmm ci biir Touba doon daje di xool nees la def ba daal di koy jagleel am tertu bu am solo Abdoulahat Seck Sadaga bokk ci ñoom di wax ne daal loolu lii fas nañu ko waaye it am na yenn ci ay jumtukaay yu nga xam ne bu doon seen sago nu jàppale leen ci. ñu bëgg nag teeru ko teral gan yi ñëw ndax dëkk yi bari dañu fi ñëw ñu fas yéene dara ñun waa Touba. ndax xam nañ ne ku xam Touba xam ko ci teraanga bu loolu wéyee nag président de la République wax ne dafa ñëw pour ñu waxtaane fi li jëm ci mbay euh, bay wàllu ñax mi nga xam ne dañ koy dundale jur gi muy lu am solo loo xam ne ñun dañ koo soxla parce que lu fi jafe la amu fi mais ñu ngi koy ñaan ñu gën ñoo jàppale ci jiwu yi gën ñoo jàppale ci ay forage parce que soxla nañ PIDC sa jàppale ci ay forage li wër biir dëkk bi ndax jafe-jafe la ci sàmm gi fu suñu jur yi di naane jafe-jafe la it ku bëgg a bay bay moomu nga am ndox moo ko bayee loolu it wax dëgg yàlla ñu ngi koy ñaan mu gën ñu ci jàppale. di ñaan ministre bi it mooy sàmm Ndiobène Ka di ko félicité jàmbaar la woo nañu ñu ngi koy seenu tey wala suba ñu gën ñoo jàppale ci wàllu ripaas bi nga xam ne moom la ñu jox jur gi tamuy teel ndax bu teelee ñëw ci lay gëne ci ñun. te ñuy jox quantité bu am solo ndax Touba xam nañ ne dëkk la boo xam ne ci wàllu sàmm dañ cee góorgóorlu te ay jàmbaar lañ ci ñu gën ñu cee jàppale gën ñu cee taxaw ba nga xam ne danañ ci am lañ ci soxla di ko wax nag ne ko soxla na ñit ñun waa Touba ñi fi yëngu ci wàllu élevage mu recevoir ñu ci Ndakaaru moom président de la République parce que bëgg nañoo toog moom xam nañ ne bu ñu toog ak moom suñu jafe-jafe saafara ndax gis nañ dëkk yi toog moom yëpp seeni i jafe-jafe saafaru na gis nañ li nga xam ne ci wàllu de se gis nañ ne dañoo bëgg bu mu buy ñëw Touba ñu bàyyi waale ci xel sàmm yi butal ñu it fu ñu ñàkki jur gi ndax yooyu du fa bari dañ koo perte ndax lu tax ñu perte ko fu bari bi nga xam ne dëkk bi dem na ba àgg fa dañ koo dindi nekkatu fa wala léeg-léeg fi muy ne ci biir dëkk bi yóbbooti fa jur di ko fa ñàkke yombatu fa kon ñu ngi ñaan ñu gën ñu cee jàppale loolu mooy li nga xam ne kàddu yi nga xam ne waxoon nañ ñu ko nen nañ ko wax loolu dama ko ci turu mbooloo mi yëpp dama yor seen kàddu ànd ak ñoom ci liggéey bi loolu rek laa waxee moo tax ñun ñëpp ci tur ñëpp laa wax ku fi xool xam ne ay kilifa kese ñoo fi daje dara li yëpp ñu ngi fii kon nag ñu ngi ñaan président de la ñëw ci jàmm fekk ñu ci jàmm ñu dalal ko ci jàmm li ñu fas yéene daal mooy benn dëkk boo xam ne jaar na fa ci journée élevage Touba koy man département Mbacké moo koy man ñoo bëgg ñëw dalal président de la République wan ko li mu jàppalee sàmm yi parce que li mu fi indi ci ay jur dimbalee ko dimbalee ko sàmm yi dafa bari ndax jur gu ne bi président de la toog ak léegi xam nañ ne fu ne jëlee na fa ay nag fu ne jëlee na fa ay xar fu ne jëlee na fa ay bëy fu ne jëlee na fa ay ginaar indil ko sàmmi Sénégal yi loolu nag war nañ ko cee sant gërëm ko loolu moo tax ñu def bis boobu. kon nag ñu ngi koy sant gërëm ko ñaanal ko mu ñëw ci jàmm delluwaat ci jàmm mu xam ne ñii ñëpp ay njabootam lañ. amu ci kenn koo xam ne dëkk ba mu dëkk jàppalewul président de la république ñoom ñëpp ay kilifa lañ te dëkk yëpp dañ ko ci jàppale. Mhm. ñu ngi ñaan nag bu lii paasee fas nañ yéene def tournée boo xam ne dañ ko bëgg a def parce que fas yéene it nag organiser fii ci département bi benn foire boo xam ne foire lay tu foiru Touba lay doon. Mhm. loolu it danañ danañ ko waxtaanee jàpp ko moom président de la république lañ koy tuddee pour ñu def ko fii ci Touba. Mhm. ñu wane suñu yëf jaayee ko fii ci dëkk bi. xam ngeen ne bu ñu jaay bu ñu jaay xar màggalu Touba bu ñëwee nag buñ koy jaay. ñun fii ci Touba dañ koy jëggaani xar dañ koy jëggaani leneen dañ ko jëy te ñoo ko fi dàqarey loolu na lañ bëgg président de la gën ñoo gunge ak banque yi nga xam ne mooy financement yi nga xam ne président ñu ngi koy financé te mu nekk ci état ñu jàppale ñu ba nga xam ne danañ gën a a ay ay financement ba sàmm gën a mën ba nga xam ne loolu dootuñ ko jéggaani. Serigne Kosso Mbacké di taw ci xalif général des Mourides Serigne Mountakha Mbacké bokkoon ci ña fa teew rafetlu loolu jotaay bi waaye di wax ne sàccum jur gi moom bokk na ci li nga xam ne mooy gallankoor sàmm gi. ñu ngi leen di sant bu baax. nee ñu ngi leen di sant bu baax. solo la. nee li ngeen lu am solo la. ndax njiital ndax njiital réew. yàlla koy tànn. yàllaa koy tànn te ku mu ko tànn ci yow ku ca ànd ku ca ànd da noppal sa bopp nee na da ngay noppal sa bopp boo ca àndut it boo ca àndut baaxoon na nga maandu nee na baaxoon na nga maandu ba waxtu woo xamee ne ba waxtu woo xamee ni yàlla def na ko ci yow yow mi ko bëgg nee na yàlla def na ñu koy teg ci yoon wi ñu ko war a teg loolu mooy la ci am solo. nee na loolu mooy la ca am solo. ah di leen ndokkeel ci lii ngeen wax ne. nee mi ngi leen di ndokkeel ci li ngeen wax ni. def ngeen ko. def ngeen ko. gannaaw bu ngeen amee yéene ji. nee na bi ngeen ànd ak yéene nga xam ne kenn ku nekk. nee na nga xam ne kenn ku nekk. bu ko mënoon lépp moo koy def. bu ko mënoon ci yéen lépp moo koy ne bu président dikkee. nee na nga xam ne bu président dikkee. dañ ko naan kii moo ko def. danaan dañ naan kii moo ko def. waaye nag ginnaaw itam. waaye ginnaaw itam. a ko bokk. ñëpp a ko bokk. waaye kenn ku nekk. nee na waaye kenn ku nekk. fas na ci yéene def loxoom. fas na ci yéene def loxoom. def ci wàllam. def ci wàllam. kon ba tey loolu cant la. nee na kon ba tey loolu ak cant la. yàlla ko yàlla mottali. nee na yàlla ko yàlla mottali. te ñaan yàlla itam. nee na ñu ngi ñaan yàlla itam. ah mu musal nu ci. nee na mu musal nu ci. luubute gi. nee na luubute yi. waaw luubute gi. luubute gi. dafa xaw yaatu. ci àdduna si nee luubute gi dafa xaw a yaatu lool. nga xam ne. nga xam ni. daanaka kenn sawarut a denc daal daanaka kenn sawarut sawarut a denc leen. kenn sa kenn sawarut a sàmm ci àll. nee na kenn sawarut a sàmm ci àll. kenn sawarut a sàmm ci kër. kenn sawarut a sàmm ci kër. ndax sàmba booy yi nga xam ne. ndax sàmba booy yi nga xam ni. ñoom ñoo ñoo jóg ngir loolu nee na ñooy di def lu yooyu nanu gën a wattandiku bu baax nee na kon nañu gën a wattandiku bu baax te bu président bi ñëwee itam nee na bu président bi ñëwee itam xam naa dana wax xam naa dinañ ci nee nañ mu gën man mii wax ak yéen moom mii di wax daanaka maag li ëpp ci doomi kilifa yi nee na daanaka ci noo ci àll bi ne yéen noo ngi honorable député Abdou Lahad Seck Sadaga ak ñi mu àndal di rafetlu loolu jéego yi nga xam ne président Macky saal def na ko jëm ko ci wàllum càmm gi ànd ak ministre bi nga xam ne moom la ñu dénk boobu jotaay waaye di fàttali politiciens yi ne bis boobee daal càmmkat yi ñoom ñoo ko moom